boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aoudu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidi alawalina wal axirin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xayra xadimihi wa sallama taslima mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu tedd mi asalaamaaleykum ñuy am mbégte bu baax ci àndaat ak yéen ci seen jotaay yu am solo yooyu ñu baaxoo ànd mu jàngatu xutba bi di ci ànd ak Cheikh Ahmadou Rafaay muy xutba yu am solo yi muy def ci jumaa ji ca aliya yu ama am solo waaye di yu dëppoo ak jamono ñu ci ànd ak moom saa sune rek di di ko topp saa suñ dégloo xutba bi ba noppi rek bu ko defee ñu ànd ak sunu baay Habibou Gueye mu def ci ay jàngat def ci ay taxaw seetlu ngir mu gën a mën a yaatu waaye ngir mu gën a mën a jariñu ci njàngalem Cheikh Ahmadou Rafaay kon bisimilah ñu tàbbi ci biir waxtaan bi. moom bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci euh, bu ñu demee ci alxuraan danañu ca fekk yu bari yoo xam ne day nettali la weesu di ñu wax li ñu nekk nuñ ciy def ak bu ëllëgee fu muy mujj am na ca baat bum tudd tuddaat ko tuddaat ko mu mel ne.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 mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi dellu si waat ak yéen ci seen njàngatub xutba al cheikh al imam ahmad rafaa'i ayyadahullahu wa nasra mu am solo lool mu ñuy fàttali am solo gu al alxuraan am solo ndax alxuraan dong dong mooy téere bi nga xam ni boo bëggee xam li nga fekkewul nga weesu ko eh, mboolem soob yi nga xam ni ñoo fi jiitu xeet yi yonente yi jamono yi fi romb seeni axbaar muy ndil la ko boo bëggee xam ate wiin wun war a woo ci jamono ji ngay dund lu mu tëddee mu àtteel la ko mu wax la ko boo bëggee xam ëllëg euh, lan moo fay am solo ëllëg kañ la ëllëg su ma fa bëggee bokk ca ñey mucc nu may def alquran wax la ko allahu akbar téere bu am solo boobu nag kon di alquran mooy téere bi nga xam ne mooy ndeyi téere yi alakul xaal ñu jox ko xeet bi gën ci xeet yi loolu kon mi nuy delloowaat ci ni nun bu nu amee benn jaaxle rek bu nu amee benn tardement ci noonu la ndax boo lem jumtukaay yi war a defar sunu affaire yépp alquran daf ko daf ko tërkiis ci biir téere bi wax ni moom bàyyiwul dara maa farat naa bàyyiwul dara dara dara lu dul def nañ ko ci teer bi ne yàlla fayal nu ko bu baax a baax baax a baax mi ngi fàttali lu am solo muy tuub ndax bokk na ci ñi yàlla gën a bëgg mooy ñiy tooñ léeg-léeg di tuub bu bu leen rëccee xam nga mooy yàlla mooy li nga doon def faf mu mooy daa mooy waaye jubluwoo ko ci nga tuubaat tuub googu di dellu nag jàmm bu dafa dafa dafa dafa dafa yitteel suñu borom lool ndax am na benn hadisul qudsi wala benn hadis buy wax ni bu ngeen fi nekkoon bañ a mooy di tuub ma di leen di jéggal ma jël leen fi indi fi ñu ñoo xam ni dañuy jàdd di tuub di jàdd di tuub loolu moo noo koy noo koy loolu mooy yàlla nii la ko bëgg ndax moom tawaab la moom xafuur la moom euh, moom afuwul la moom sunu borom subhanahu wa taala ak yeneen ñi ma tuddul gis nga ko kon mi ngi ñuy fàttali Adama alayhi salaam ak Xawaa seenu njàlbeen bi ñu lu indee fii ñuy jaare ci ñoom ñi suñuy maam léegi nun dañoo bëgg a def dañoo def ijtihaad farlu ci biir yàlla xamalee ni lii moo baax lii moo bon bu ñu yemee ci li baax nu delluwaat fa suñu maam jóge woon muy aljana nga xam ni amul tawat amul tére amul dara loo xam ni coono la du sàppi nit ki nit du fa màggat amul ay fere te du la sàppi ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag kon ndekete mu ngi jàngale ci xutba ni nit ñi dañoo war def ijtihaad farlu ba fexe ba ndigali sunu borom yii subhaanahu wa taala ñu ne ko dann bañ koo wàcc bañ ceetee defal soobu ci rek mi a bil mi a mi a bil mi a mbokk yi suñ dund gii buñ ci góor góorloo dund guddul jeex ga ga sunu maam nekkoon foofa mooy sunu cosaan ñun fa la nu cosaanoo kon mbokk yi fa la maam jëkk a nekk adam te sunu borom nag sëñ baa ngi koy wax dafa baax dafa bëgg lool nu delluwaat foofa sunu borom dañoo yéene aljana lool lool lool ndax wax na nu la ciy yóbbu nit wax nañ lam koy jaayee mu yomb lool boo ko defee benn jaamu yàlla bu baax mu bindal la ko ay yoon yu baree baree bari boo juumee def genn mooy yàlla mu xaar boo ko jéggaloo mu jéggal la ko bu ko nangoo sax soppi ko def ko lu baax faf boo ko jéggaluwul nag xaj na mu bind ko benn yoon te bu jamono demee ba bala ngaa faatu nga rëcc jéggu mu bindal la yépp mu mu mu mu mu mu jéggal la ko kon kii kay mbokk yi ah bu doxee sa ak aljana ubbi na la bunt bi def la ay facilité yooyu tax nga mën caa dugg waaye gis nga jamono ni mu ni mu doxee diggante nit ñi ak dugg ci kër gënu jégoon muy aljana moom jamono gàllankoor nit ñi jël yoonu jëm sawara teli ko ba rafet mu def ko à péage yombal ay demukaayam lool lool lool raglul yoon wi jëm aljana lool def ko mu naqari kenn taliwu ko mu am ay pax ak yu ay xur ak yu tund ay ndox yu taa ay lëndëm lëndëm ak alakul xaal loolu mooy dañoo wërale àjjana mbooleem la ko wër ay makaarix waaye sawara na nag moom achahawaat yooyu rek ndeysaan alhawa yooyu rek moo ko wër loolu li muy tegtale mooy kon nit ki bu jaaree ci yoonu hawa woowu jahanama la jëm bu jaaree ci yoonu euh, balaa woowu mu ngi jëm aljanatu naim yal na yàlla yóbbulu ci ñun ñëpp mbokk yi ci yàlla kon léegi nag boo góor góorluwul ba di jëfe ndigali borom bi te nee nga julit nga xam nga boo xefee di nga bokk ci inal munafiqina fi darikal asfar asfal bi sëriñ bi wax wax na ni naafiq yi kët ndettal sawara ñoom fa la ñuy dëkk allahu akbar xam nga àjjana moom boo yéegee boo duggee àjjana ju ci dàq mooy gën a kawe sawara nag safaan bala ba ci gën a metti mooy ba gën a suufe moom sawara wal iyaasu billaahi léegi nag munafiqiina yi ñoom ñooy dëkk ca ndett la maanaam boo tegee kawdir di togg la sës ca cin la gis nga loola xam nga moom moom mooy gën a xëm li ci kaw gis nga li ñuy wuute kon sawara noonu lay wuutee la ne ca féete kaw ak la féete suuf noonu lañuy ñuy wuutee ala kulli haal ci yàlla kon dañ doon tënk rek waaye waaye nag yàlla mën na caa musal nit ila la si na taabu wa aslahu mbokk yi li tax ab jaam suñ li ci point bu am solo mooy ginnaaw yàlla huwa tawaab daa bëgg jaam buy jégglu ndax moom loolu jikkoom la loolu melokaanam la muy jéggale kon ndekete jaam bi di tax tasawuf jël lii di a tawba daal di koy def muy jumtuwaay boo xam ni même booy sóobu di tàmbali tawba da nga koy tàmbali di ko def ba kere ngay faatu dangay nekk rek yow it euh, taayib suñu borom nekk tawaab nga nekk taayib rek ne laa yatuubu man taab gis nga waaye kuy jéggalu lay jéggal kuy jéggalu lay jéggal kuy ñaan kooku lay may subhaanahu wa taala gis nga melokaanam woowu nag moo tax mu nuy waxal boppam ci xadisul qudsi bi alayhi salaam wax ne ah sunu boroom ndaxam njël gune guddi gune mu jigéel boppam nit ñi di leen wax ndeysaan nga xam ne sa usnul xaal da koy dégg mu ne ah, ana ban jaam moo may laaj ma jox ko waay waaye ana moo may jéggalu ba ma jéggal ko waay ana ban jaam mooy laaj li mu jox ko waay ana moo may jéggalu ñi ëpp ci nit ñi di nelaw ñii ña nga ci caaxaan yéen fanaane woon ala kulli xaal ñii xamuñu yàlla sax subhaanahu wa yàlla boole ci benn benn ya nga xam ne waxtu woowa ñoom dinañ ci jóg def ijtihaad mu fekk njël googu ñoom yewwu nañu bu amul ngànt bu ñu wéree ñu ngay julli wala ñu ngay jàng alxuraan wala ñu ngay yor kurus di wax ay baat di boole ak dëkkuru ak fekkuru ñaar yëpp ab julit da koy def ala kulli eh, foofu nag suñu boroom bu ñu ne day wàcc njël gune ne nga ni waaw ah nun léeg-léeg njël bu jotee fii ci Sénégal léegi yoor yoor ma nga jot fale ci Arabie Saoudite waaye ginnaaw fu la na njël rek nga ni waaw waaw kon kay sunu borom moom njëlug Arabie Saoudite buy jot suñ borom ma nga fa njëlug senegal buy jot suñu borom mi ngi fi njëlug Amérique buy jot suñ borom ma nga fa sun boroom dara dafee nekkuloon moom mu nekk fi moom dong kot kon lu ñëw yaa ngi nekk ci biiru sunu borom subhaanahu wa taala mbokk yi kon sunu borom ndekete mi ngi nuy informé ba bu nu góor góorgóorloo ndeke am na waxtu wuñ ko mën a dàkk ngir gën a mën a communiquer ak moom bu baax ndax moom ci misaal bu doon nita danga naa ku bàyyi ay yitteem la ñëw taxaw ci say yitte fëggal ne la kaay jël ubbil bunt bi wala tàllalal mu jox la wala yàngal sa poos allahu akbar xoola loolu mbokk yi yàlla def nu ay dëgg-dëgg jaami yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala gis nga ko waaye nag ki muy jéggal ak waaye boroom teggin yi ki nga xam ne du dogoog mbokkum jullitam ndax kat am na ay avantage yoo xam ni ñaar ñu dogoo duñ ca bokk feek jubóowuñu mbokk ci yàlla kon buñ doon tënk daal dañ dinañ xam ni vraiment xutba bi moom jaarati na fa doon jaar yal yàlla fayal na ko yàggal ko ci kanam mbooloo mi mu yàgga def xutba yu am solo yi ci barke alquranul karim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyi ko